base pour ñu lay déggee parce que tey jii rek Koungheul dafa am groupe dafa am groupe wala tey fan si yoo xam dañ koy doolal di ko xeexal ci réseaux sociaux yi ñoom ñoom lan nga leen doon. non non dama leen di ñoom du du xeex sax aw ma ñu may xeexal ci réseaux sociaux yi damay am ay nit yoo xam ne peut être dañoo dañoo nekk nitu dëgg parce que réseaux sociaux yi métti mais ñu koy déglu ñoo war di comprendre nit ki fi muy waxee man dama bëgg réseaux sociaux yi bañu ma ku ma commentaire bañu ma dara mais gis nga commentaire bi këlaay na nga commentaire koo xam gis nga yu bari mi ngi xew Sénégal nañu xool xool yi parce que nit ko yeewoo nga di ko waxal yow ma nekk sa ginnaaw clavier rek moom mi ngi dem mais yow li may commentaire man maa la gën a avancé parce que yow nit naa li tax ngay wax te yow man xaw ma looy liggéey ba nga wax donc ñoom da ngeen di bàyyi ñu wax man wax yow du ma koy considéré du ko tenir en ci du dëgg bu jàpp ma yooyu coow lu bari si diggante tey jii nii ne ne mooy Fatou ba gars yi di ci wax coow lu bari ma ci wax xam nga loolu ne ma ci wax parce que conférence de presse bi ba moo tax ngeen am occasion wax ci sama mag la yaa ngi dégg bi ko waa inférieur mi defalee euh, nu mu tudd sax interview bi ñoom mën naa ko njëkk a seetaan ci àdduna ñoom dañ maa woo pour ma tontu may leen du ma tontu loo xam ne xamaguma ko ñoom ñu envoyé ma ko bala may dugg internet bi ma déglu ko jël sama téléphone mat mat gu toll ne woo Fatou Laye bi ma woo ko muy sama mag ma expliqué ko mu expliqué ma mu wax jox ma ma wax delloo ko ba mu am ci moom lu ko naqari parce que nag. laaj nañ ko loo xam ne peut-être ka ko laaj waxu ko li tax mu laaj ko loolu voilà Fatou Laobé di sama mag ba léegi ni ma lay wax barke Khalifa Ababacar si bëggeewu ma ku dul Fatou Laobé yàlla dogal na loolu wax ma moo tax kenn gisuma ma di ci wax polémique bi nag bari na samay mbokk am nañu mer peut-être am na samay fan si yoo xam dañ ma ne pourquoi doo ko tontu may leen du ma tontu Fatou Laobé ndax lan ma wax ci téléphone day na ma sama rakk la erreur am na am na ci lu ma naqari waa lu ma ci wax dawaa ma ba jégal ko nag ci xol bi sedd guy barke alaaji Maalik barke xalifa Ababacar kon benn vague yi nii ñu gis pendoo bi pendoo bi mature waaw xam nga mature xam nga teg la war a mature gis nga ci monde bi ñu nekk nii ruubekat yi mooy ñeen journaliste yi ñeen ñi si ñoo ko tey wax ñeen yéen ay ruube waaye bu leen ruube sama diggante parlement ko bëgg dama am si ñaan Amérique dafa sori dina ma woo ma laaj sama yaay nan ma sa njaboot mbaa tawatuma Fatou Laobé laa bëgg fii laa ko def barke El Hadj Malick. waaw Fatou Laobé nga bëgg waaye nag mu am sa single bi nga xam ne yaa ngi koy waaj a wax ci vidéo yi. mbaa do Mor dama mel ni ci Fatou Laobé. ma gis ma gis ma gis. maam dina ma woo di ma laaj sama yaay naan ma sa njaboot boobu mën a woy pire te bëgg moom pour su jeexee su jeexee jeex la fàtt nag moom moo ma njëkk dugg ci côté art xëy na ay musique ay single ak vidéo yooyu man man maa si njëkk a def mais côté art moom Euh, fecc ballet théâtre ak ay taas yooyu yooyu la njëkkee woon waaye nag bi yàlla dogalee comme na ma ko gën a sopp ma topp affaire def ay affaire xam nga après ma woo ko ci mais man gis naa ni lu ma def man kese su ma ci àndee ak moom double lay nekk waaw ah, des fois sax ma sànni ko xeer nekk ko dama lay dimbali mu ne non non eh, man yow laay dimbali xam nga mais quand même complicité boobu noonu moo moo moo am solo surtout ñaar ñu bokk ndey ak baay tey euh, conférence presse bi xam nga naa ñëw man kese waaye moom daf cee bokk. parce que mën naa ni lépp lu ma engagé maag moom ñoo koy defandoo mën nañu nag dóorante nag moom saf sàpp ci ci ci werante bi mais après dañuy mujjee euh, trouver benn terrain d'entente ànd ci liggéey bi mel noonu quoi. Euh, pour ñu xam ko dem maa ko magee ñaari at parce que nit moo sama yaay moom sama yaay ak kii dañuy xuloo parce que li ma ni may doxee ak moom ni muy doxee du benn moom dafay bëgg def garaawul kii wax na ma ma ne ko déedéet dem na kii wax lii nii man damay wax ni loo wax loolu nga war a def donc dafa xaw a xaw a moom day bëgg demal boppam dama koy wax noonu noonu il faut nga ñëw na mu ko ko jox mu bàyyi ko yow dem seeti leneen côté boobu lay demee te que le fait que noonu ñu di ko néewal doole nag ci yu bëree bëri yooyu lay bañ lu si bëri def ma koy nëbb moom léeg-léeg dama jékki si sa dégg si moom dara ma du ma ko sama rakk yi ñoo ma koy sàcc naa ko wax ma ko moo ko ne ko dem ba dégg naa kii lii la la def waaye yow kii mu ne ma déedéet du noonu benn bu ko expliqué la ma ne ko non non aar bi il faut nga am caay-caay soo amul caay-caay dañ lay néewal doole te man nee naa leen sama rakk la ñoo bokk mbay ak baay ku ko néewal doole mën nga néewal doole kon man lu ma fekkee faj ko xanaa lu ma yëgul mbaa lu ma wax waaye ku ko laal man mi ngay laal bi ak public bi nekk Europe peut-être duñu benn mais sénégalais lañu ñoo war a bàyyi bu ñu leen joxee euh, heure mm-hmm. vingt heures wala vingt une ñoom ñu bëgg a ñëw vingt vingt trois heures parce que artiste bi dafay fay lu cher donc nga teel ñëw ñu teel ñëw parce que xat-xatu dëkk bi tam na ko ci calculer waale embouteillage bi donc nit yi nga xam ne ñooy ñëw di seetaan artiste bi day neex artiste buy dugg si mu fekk la fa parce que booy dem soirée sax boo fekkee ñaari morceaux yow demal ñibbi

wala say moyens nit ngay génne pour def li nga war a def yëpp pourquoi def boobu label yi ñu ngi contacté Demba Demba moo bëggul liggéey ak label wala da nga bëgg rek di nekk ak say yëngu bopp beneen bi aussi dinaa si ñëw mooy sa diggante ak Baba Maal bon am na lu ci am ñu bëri xamuñ ko bëggoon naa aussi nga leeral ci ñi nga xamante ne bii tey mooy tool bu ñu seetaan sa diggante ak Baba Maal lan moo leen yéeral. d' accord euh, première question bi. Euh, première question bi ban la ban la avant juste mooy. ok tout le temps Sorano boobu boobu répondre naa ko répondre naa ko répondre naa ko dinaa ko waxaat aussi que mu leer que bi may dem Sorano daw ma woon pour mu fees wala ak yooyu quoi titre bi ma soxla woon mooy man ma bokk ci histoire Sorano bi nga xamante ni que ndaanaan yi nga xamante ni Père Guissé Pène jaar euh, lim na lim na ni jaar na fa toujours ma ni euh, Sorano. am na chance bu grand théâtre amul ndax ndaanaan yi fa jot a jaar tey lu su mel ñoom ay suñuy papa euh, ki Ablaye Mbu papa Ndiaga Mbaye ak ñooñu ak ndaanaan yoo xam ne aussi ay international yaa euh, ma demee kat di laajte renseignement bañ bañ ay ay euh, Jackson Five famille Michael Jackson expliqué yoo xamante ni que mosuma ko woon xalaat donc tey titre bi ma soxla woon mooy comme que Sorano bi ko fi Léopold Sédar Senghor euh, defee ba tey donc am na chance ndaanaan yu mag yu kenn xamul woon tax man fekkee uma seen génération jaar nañ fa man pour pourquoi pas man ma bokk si ñu jaar foofu ba ëllëg tey lu ñu def tey ci Sorano mbaa tey bu bu livre bi génnoon tey sama tur nekk ci biir xëy na chance boobu la grand théâtre amul loolu laa wax benn ñaareel chose bi ma ko defee yàlla dogal euh, première année ñu defal ma Demba gise à réussi son pari à Sorano deuxième année defaat ko troisième année defaat ko ba quatrième tey ma bëgg ko defaat tey donc nekk maa ko wax toujours que nekkuma si tendance su fees naam feesul parce que man xam naa ne Sorano bii ni ni ni nii déjà billets yi jeex na donc werante wu ma ba xam dina fees ak dina du fees damay léegi xool ci côté euh, spectacle ak yu mel noonu quoi donc li ma fa yóbbu woon nag دوك باسك واخنا واخا كرك نانا تاي ديون صاح سوما نيهي ما ديم سيسس ولا صاح ما ديم غران تياتر مانا نيكا سوما نيهي تام ما ديم بيغلين دونك اماتو ما لوموي بروفي بير سورانو بور كو داما كاي تيغ ولا داما ورا شانجي كوا باغي واخ صاح كرك بن سي انترنت مانا كو داف ليغي داك خامغو بور ليغي لا ني باج ما بوبو كاسيون xeyna de won nak manam grand théâtre xam nga mais quand même do won dara quoi dama don xol ni rek bo euh euh fofu euh même sama côté fay bi may fay xeyna sorano mo gëna ñi ñi ngay wax na comme ci xale yi sax peut être ñenn ñi maa leen jiitu ci musique ak yooyu ak foofu ndax nit nekk na fi ba am âge am ba retraité te musul jaar Sorano nit nekk na fi di soog a egg si tey salaamaaleykum mu dem Sorano donc yàlla mooy tëralee noonu ay mbir dégg mais dépendrul ci kii gi parce que mën nga am talent te fekk mënoo feesal sax yëngu leen mën nga ñàkk am talent sax nga feesal Sorano sax nga si nga feesal sax euh, euh, euh, Esplanade bu Grand Théâtre dépendrul foofu titre bi la donc saa su ma fa demee mosuma am ak ñoom bor mosuma fa am benn problème donc lépp fay naa ko comme ni ko pay gisee pen waxee donc euh, ko bàyyee moo tax moom nag pour dire vrai ci ay xuloo lañ dëkk moom parce day wax <laughs> ne damaa dëggal bopp tout bopp bi yëpp mooy des damay euh, peut ni du du comprendre ne li muy jàpp ni euh, euh, euh, maa ngi ci di ko def fekk na am na ñeneen bu ma ko dénk moom nag toujours day bëgg affaire bi defaru ba baax dafa naan ma kaay woo ma laaj ma fekk te yoo bañ ko sonal moom mooy tax ko mais quand même lu may def rek moom daf may woo ne ma jaarale ko nit su ma jaaree foofu aussi loolu laay gis nii.